non non non non non parce que. non non mais question bien. parlons bien question poussé même les promoteurs que def ay folie. non non pardon

teguñu ko ci yoon te du dëgg parce que nag pousser un promoteur à la rescousse pousser un promoteur ci musiba mooy di ko fayu 100 millions di ko fayu ay 80 vingt di ko fayu xaalis boo xam ni quatre millions 70 mais dafa metti mais yow kii ni koy pousser yow sa kër peut-être da nga am jàmm mais yaa ngi pousser nit ki ka mu jaay këram wala ka mu def lu mu warul def wala ka mu dugg kaso wala mais mais yow yaa ko wax léegi Petit Mbaye ne mérite pas di génn dëkk bi il ne le mérite pas il a tout fait pour la lutte Luc Nicolaï ne mérite pas tey li ko dal li yàlla neen yàlla delloosi génn Luc Nicolaï mais attends mais topp ay mbër wala ay pare mbër ñu lay wax ni kii bi combat lii la bu jëbëree ne mu jëbëree loolu booba ca jamono yi naufrage bu la woon naufrage yoo amoon nit ñi def ay folie garçon di def folie ñuy fay mbër yi loo xam ni attanuñ ko mais attends nit ñi léegi euh, dañoo war a dellu si seen xel. kon yow mbër yooyu nga ciblé bu fekkee kenn fekk si wu la. ci non non suñu déglu yoon. mën nga mën nga am plan xam nga tey fekk nga fi seen i manager président yi manager yi fekk nga leen man du ma ci seeti benn mbër du ma ci forcer kenn aw ma fixation ci kenn. a seen ngay waxal directement. ciblé naa daal ay mbër seen i manager dana leen seet mbër bu ma ci woo itam dinaa la wuyu ñu waxtaan. mais est-ce que am na ay avancé non non du question amati. lii maanaam est-ce que lay avancé maanaam ay ay accord de principe. non non déggoo man la lii projet la buy soog di taxaw yaa ngi ñëw tey fekk fii manager yi mbër yi ñoom ñëpp dégg nañu mbër yu bëri ngi may téléphone mbër yu bëri joxe nañu seen accord sans man ma woole ñu ngi may téléphoné bu ma fàtte père bu ma ci fàttali père bu ma fàtte rek ngay dégg ñoom ñëpp a sonn. kon ñoom it xam nañ ne la woon. wóor na woon na bu baax a baax a baax.